di amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen saa su ne di am mbégte bu baax a baax a baax nag tey jàkkaarloog yéen waaye ñu ànd ak suñu naataango euh, Bourguewel euh, TV Bpro Média ak ñi nga xamante ni ñoo di Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy baaxoo di def ak yéen rek saa ne di dalal ay kilifa yu mag yoo xamante ni dañuy seq ak ñoom waxtaan ci xam-xam waaye tey ñu dalal euh, seq boo xamante ne ni ma koy waxee rek sénégalais dootu ñu leen ko présenté ci ni moom la taxawee ci réew mi di Cheikh Ousmane Mbaw taalibe Cheikh Ibrahim tey nag ma bu baax a baax a baax fas waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di xam-xam waaye aussi fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di actualité ñeer réew mi saa su ne sénégalais di xaar bu baax li nga xamante ni moo di ay kàddum euh, laataa ñuy gën a woyal suñuy kàddu rek dañu koy bàyyi mu nuyoo ak mbokku internet bi cheikh bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la chaar waaleykum salaam maa ngi sant yàlla di julli ci nant bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu réew mi yëpp rawatina kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi di nuyu Bour Gueweul di nuyu waa Sénégal Buzz di nuyu ñu leen di seetaan yëpp di ñaan yàlla yokku te yàlla barkeel bismillah macha allah muy kàddu nuyoo yu am solo waaye comme ni ma ko waxee rek Cheikh Ousmane Mbow euh, du nit koo xamante ne suñu borom da ko fee wàccee ngir saafara ak dimbali li nga xamante ni moo di jafe-jafe askan bi Cheikh bi euh, tey ci waxtaan bi ma bëgg a ak yow rek ci li nga xamante ni moo di wàllum seet wàllum seet doon loo xamante ni euh, moo di buntu ñaan suñu borom dénk la ci loo xamante ni koo ci jëflanteel rek mu gis ci li nga xamante ni moo di tawféex yan kàddu ngay yëkkati ci li nga xamante ni moo di wàllum seet. waa seet moom moo gis. Mm-hmm. Euh, daanaka boo seetee nit ki balaa mu ciy dugg balaa muy jëflante nit mm-hmm. il faut mu xool li ñu war a jëflante mm-hmm. loolu rek mooy seet mm-hmm. boo demee ci médecine am na consultation pour xool fana fan muy mu après ñu seet lan moo ko waral ak fu feebar bi toll ak fu jafe-jafe bi toll seet nag xam-xam la boo xam ne bu yàgg ak àddina bu yàgg ak diina ndax am na seet yi gën a fas ci diina am na yoo xam ne fësul ñenn ñi rek ñoo ko am lu ci mel ni rawaxaan di wax ak yow lu ci mel ne xuddaam di wax ak yow lu ci mel ne jinne di wax ak yow loolu seet boo xam ne ku jóg rek man ko mais am na seet yoo xam ne ci yonentu la wàcc lu ci mel ni seet boo xam dafa aju ci biddiw yonentu yàlla Idrissa biddiw la njëkk a jàngale ndax jamonoom seet dafa doxoon ba mu yàgg yàlla indi yónni Jibril mu jàngal ko ramdu loolu tamit seet la boo xam ne ku ko xam li paaseeg fiñ tool ak liy ñëw yëpp di nga ci mën a wax di nga mën a wax ci kaw ak ci suuf ak ci diggante bi xataa di nga mën a wax ci àllaaxira koo xam dëgg-dëgg te seet dafa aju ci rek ci li paase ak li teew ak ci li liy ñëw seet la boo xam ne dégg nga bu foora foor la boo xam ne am na sësluwaay tamit ci alxuraan ak sunna mm-hmm. yonent bi laaj nañ ko ay façon seet yu bari bokk na ci petaaw daf ko araamal mm-hmm. bokk na ci lépp lu ñuy wisaare rek daf ko araamal mm-hmm. mais nag bu dee seet daf ne kaana nabiyun min al anbiyaa yi yaxuttu fa man waafaqatu fa zaak am na benn yonentu ci yonentu yi boo xam daraan rëdd boobu moom ku ko man baax na ndax xam-xam la boo xam dafa bayee ko ci yàlla dégg nga ñu seetee lool bu ko laajee danañu seet ci rawxaan bu ko laajee danañu seet ci xuddaam bu ko laajee dégg nga danañ ni consulter it dégg nga bu ko laajee ndax ni ñuy ni ñuy ñaanee noonu lañuy fajee tamit te ku ne xam na ne médecine dégg nga il faut que nga xam dégg nga feebar feebar yi dal nit ki ak yenn matière lay bayee ko xam tamit yenn garab lay jël ak yenn temps la koy jël avant lekk wala après lekk ba mu jeex kon su boobaa seet moom lu valable la ci diina am na seet yoo xam ne njabarkat moo koy def am na seet yoo xam ne sëriñ moo koy def kon buntu seet daal lu yaatu la en tout cas lépp luñ bugg lu ñu war a dugg muy suñ mbir muy mbiru jaamu yàlla yëpp danañ xool ban seet rek lañ ci war a def. sarax mënul wax boroom xam-xam sarax bu nangu sax mën naa fànq dee waaw sarax moom dafay fay mergu yàlla sarax day tax nattu bi nga nekk dëñ sarax day tax nattu bi waroon a wàcc yow du agsi mooy li nga tudd léegi muy fànq moo tax sarax bu fekkee ne danga nekk ñaankat te xamoo sarax mën nañu wax ne ñam wu amul xorom la mooy ñàkk xam sarax sarax rek dina faj sa ajo sarax nag dafa yaatu euh, xam sarax baax na mais xam sarax bu nekk ci ban aajo la lañ ko lañ ko a sarax baax na xam heure sarax baax na xam bésu sarax baax na même booy saraxe ki ngay ànd ak mën na yàq sarax ki ngay jox mën na yàq sa sarax dafa am sarax yoo xam ne sa avenir la aju am sarax yoo xam ne ci sa fàggu sa wërsëg la aju am sarax yoo xam ne seen néegu ndey la aju mm-hmm. am sarax yoo xam ne seen néegu papa la aju am yoo xam ne sa wàllu njaboot la aju mm-hmm. am sarax yoo xam ne sa wàllu feebar la aju te bu si nekk ay détail la mm-hmm. am sarax yoo xam ne sa wàllu relation la aju ak sa wàllu samp kër si soxna am sarax yoo xam ne sa wàllu gudd fan la aju am sarax yoo xam ne sa wàllu tukki la aju am sarax yoo xam ne sa wàllu yaakaar la aju am sarax yoo xam ne sa wàllu noonu la aju kon bu dee da nga bëgg a sarax te yàlla tax mais bu dee da nga bëgg a sax la joxe ñu jox la loolu beneen xam-xam boppam la. ndax léegi li ma laaj laaj boobu. léegi dañu bari ci rendil xaru benn melo rendil béy wu ñuul rendil ñetti ginaar te am ñoo xam ni. ila yomil ba sar waruñu rendi. waa rendi moom ñëpp la war mu des ku jaayanteeg leneen lu dul yàlla. siñe benn pacte. boo xam ne waratu tuur deret waaye bu fekkee ne wàllum rendi jullit ñëppay rendi. te tabaski sarax la ngénte sarax la léegi nag ñan ñoo watte rendi ñooñu lañ fexe bañ war a rendi mooy ñi nga xam ne seen maam yi dañoo jaayantoon ak jinne nga xam ne dañuy rey ngir jinne kooku reyatul ngir yàlla sëriñ bi ko war a ñaana dafa war fexe dindi négociation bi papam amoon wala maamam amoon ak jinne bi mu dagg loolu relation waaw fekk sa néegum ndey wala sa néegum baay. Mm. xam yoo xam ne def na ñeent téeméer am na ñu bëri ñoo xam ne bi ñu xamanteeg man. Mm-hmm. jinne yi dañ leen daan santage toujours. Mm-hmm. parce que da ngay ànd ak ñoom bokk ci famille boo xam dañuy tuur. Mm-hmm. léeg-léeg ñu bàyyi la nga libéré wu buntu boo fëgg mu ubbeeku léeg-léeg ñoom ñu sara soxla ñoom deret ñëw yëngal sa dossier pour nga dem tuuru ji. pour nga dem rendi sa deret. deret bi ñoom lu ñu koy defee mooy dafa yokk seen pouvoir ci alamu jinne ci monde jinne kon su boobaa yonent bi nee na yàlla rëbb na kuy rendi te jinna tax te loolu dafa bokk ci xërëm yi fi des ci lislaam ba tey mm, xeetu taaxut wa man yakfur bi taaxut wa yu'min billah kon yooyu dafa nekk loo xam ne ki ci ne bu buggee mucc def ci génn fekk nag maam wéet bu dëgër boo xam dafay dox digganteem ak gaa yi mm. su rek dee nga du ragalati tuur deret suratul yaasin elas nga baal tàngee rek xam nga ni lay dem yaa ngi yan aajo la ci doomu aadama bi mën a faj suratul yaasin dafay faj aajo yëpp comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mais polem bi tamit léegi-léegi nit dana jàng yaasin te benn aajo du faju ndax day mooy yàlla te ragalul yàlla te li muy lekk leewut ñaan dafa laaj bunt yu bëri mhm. ñaan tamit mhm. euh, dafa laaj xam-xam yaasin dafay faj lépp ni ki zam-sam li ma suri ba hmm. boo ko naanee loo ko yéene mu faju kon su ko defee te pourtant nit yàlla yëpp am na lu ñaan loo xam ne mu ngi seen téere yi hmm. yàlla mayul leen ko ci seen dund te ba léegi da ngay gis ne lii ñu ñaan amuñ ko hmm. foofu tamit beneen problème am beneen problème bi ci boppam yontu bi ne nag képp kuy ñaan euh, yàlla dana nangu sa ñaan fekk nekkoo def bàkkaar wala nga dog mbokk te bëri na kuy ñaan dafa dog mbokk bëri na kuy ñaan dafa dog mbokk na kuy ñaan jamono bi muy ñaan mu ngi mooy yàlla ñaan dafa am ay bunt yu ko yàq. Cheikh Ousmane aajo rek. ñu waxtaan am ndax client dañ koy def. bi la ma waxa la ma waxoon ak moom. defu ci dara. waaw bëri na client yoo xam ne ñoo yàq seen ñaan. waa bëri na client yoo xam ne jamono ya ngi leen di ñaanal ñu ngi def ñu ngi koy yàq ñoom. benn boo dogee sa mbokk mm-hmm. wan gannaaw sa waajur mm-hmm. ñaanal du yomb boo dogee say mbokk loolu yenentu moo ko wax kon bala ngay mere sëriñ bi est-ce que du yow yaa yàq ñaan gi beneen bi ci tegu yenentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne képp kuy ñaan ñett moo taxaw sa kanam benn yàlla nangu la li ngay ñaan comme ni nga ko ñaanee mm-hmm. moo xam da feebar siburu nga ne yàlla wéral ma yàlla wéral la walla mu jéggale la ko say bàkkaar wala mu denc la yool bi àllaaxira kon doo wér bu la ko jéggalee sa bàkkaar doo wér bu la dencalee yool bi àllaaxira doo wér moo tax nit yàlla yi balaa ñuy def bay def yenn kun fayeeku nii dañ dem ba am 50 ans parce que jaamu nañ yàlla ba seen bàkkaar set wecc seen gafaka àllaaxira fees na léegi aaji bu ñëw dañ koy faj dégg nga dem nañ ba mënatuñoo def bàkkaar kon aajo bu ñëw dañ koy faj te léegi boo ñëwee di ñaanlu dañ tibb seen si seeni yool mm-hmm. dóor la ko muy sa jéggal bàkkaar doo leen del mhm. ñu dóoral la kun fayakun li nga bëgg am loolu tax nit yàlla di ramm mhm. ramm du dara lu dul da am alal ju bari mhm. kii amul lu lu bee bu mën a jënd pour dugg ajana nga jëndal ñu bari bee loolu mooy ramm waaw yóbbaale leen géew waa kon su ko defee loolu moo ko waral ko yàlla mu mooy ki ragal yàlla ki am xam-xam ki du lekk lekk lu lew ki maandu ki seeti ci lu mu war a ñaan parce que booy ñaan ci lu araam yow da ngay xeex yàlla dangay ngay liggéeyal iblis ba pare nga am yaqin ci li ngay ñaan udoo laa wa antum muqinuuna bil ijaaba ñaan leen yàlla te ngeen am yaqin na day nangu sooy ñaan ba pare sikk na du am wala nit ki yow nga ñëw si ñaankat bi jox ko cent mille francs sa xelan ci cent mille francs yi dégg yaa ngi koy jox sa ni nga koy joxe sa neexu la yéene woo ko ko yàpp nga ne sax kii mooy faj aajo bi mm-hmm. génne nga ci yàlla mm-hmm. te kii lekk xaalis bi bokk te kii faj aajo bi kii faj aajo bi du lekk xaalis mm-hmm. mu yàlla mii faj aajo bi soxlawu xaalis seen relation bu rafet ak seen rafet njot ak seen jëflante bu rafet ci seen xol yi àndoo yooyu ci la leen di yërëmee dimbal leen kon su ko defee ñaan dafa laaj relation la kon kii ñaan il faut mu xam il faut mu am xam-xam sérieusement man damay am yóbbante chaque jour. Mhm. sur le senegal de la diaspora léeg gis ko ma ni buur man de fii def naa fi ñaar fukki at. mënumaa mhm. am suuf Sénégal mënumaa denc daal. moo ko bàyyi woon brique mënu cee tegu. Mhm. mel ni loxo bu bën la wala tëju la wala cat wala liggéey bu dajoo ci kenn nit. waaw li koy waral dina bëri. nit dana jënd suuf fekk barab bi mu jënd ay jinne ko moom dafa mës a tabax. nit dana jënd suuf nit def um ko suul fa dara loo xam ne du ko mës a tabax. nit dana jënd suuf fekk mu ngi gàllaaj buñ def buñ ko def bu nangu boo xam ne du mos a taxawal dara nit dana jënd suuf it wala mu dem bitim réew fekk bës bi mu dem bitim réew moo yàqu dafa am bés yoo xam ne boo ci tukkee kala jaay bés si bee si bés boobu moo moo yàq sa tukki moo tax nit ñi ñëw ci man di bëgg tukki am na koo xam day ñëw ne dama bëgg a tukki ma ne ko sa wërsëg newul foofu man nga am bee man ngaa tukki nag waaye doo am mm-hmm. mu dëgër bopp dem ma bàyyi koy at bunt bu mu fëgg doo ubbee ko mu ne ma ne nan laay def mu ne ko ñaar rek nga am xaalis ñu fànq tourné gaaf gi mhm. foofu baax ci yow wala nga ñib si ñu wax la yoon bi ngay jël pour am alal mhm. parce que tukki pour am la mhm. kon am na koo xam toog laa koy wax am na koo xam ne moom li baax ci moom mooy di dem ak a ñëw exemple di dem bi di jënd marchandise di ñëw kooku su demee toog mbiram du dox am na koo xam ne bu toogee ci réew mi du dox te ki bëgg tukki moom ban la ci ñooñu loolu dafay nekk problème léegi nag sooy dugg ci réew am na sa biddiw fu muy toll ci jaww ji da ngay wan gannaaw sa wërsëg da ngay wan gannaaw sa wërsëg léegi nag su ko defee mën nga tamit nekk ci réew faree sa penk ba te sa wërsëg fekk yaa ngi dëkk penku du dox man nga ci réew feree sa xarfu ba fekk sa wërsëg yaa ngi dëkk xarfu du dox man nga am benn àndandoor boo xam ne jinne ji mu ànd mooy téye sa mbir mm-hmm. moo tax il faut nga am wéeduwaay mm-hmm. léegi nag moo tax euh, li koy sabab dana bari mm-hmm. beneen bi it mën nañ la booleeg jinne man mm-hmm. nga nekk àndandoor bi nga àndal moom mooy tëj ci mbir ba doo taxawal dara mm-hmm. di nga liggéey di nga fayee ko mm-hmm. waaye heure bu xaalis bi téyee sa loxo sa mbokk yi oola wala sa xarit yi soxla ñu wax la ko te da ngaa tabe mënoo ci dara nga joxe ko ba mu jeex nga tàmbaliwaat à zéro yombul yomb na waa Sénégal danañu wax faral di wax faj rab waaye rab ñi ko xam wala ñi xam xeeti rab yi bariwul dégg nga ndax daanaka liñ ciy faral di wax dégg nga xanaa jullit boo xam ne amul diina xanaa xam nga rab ko tere am diina te loolu gars yi duñ ko faj jullit boo diina. Mm-hmm. <laughs> am na imaan waaye nu ko neex lay dundee diine ji rab la. gis nga faj rab ñëpp am rab. Mm-hmm. yeneen bi dafa wax ne kenn ku nekk ci yenn am na àndandooru jinne am na àndandooru malaaka mm-hmm. ñu ne ko même yow mu ne même man waaye yàllaa ma dimbale sama rab dafa tuub. du ma digal loolu lu baax duma dimbale ci loolu lu baax léegi nag ñun foog nañ ne faru rab mooy ki lay tere am jëkkër rek mooy ki nga xam ne day tax sa digganteek nit ñi di am problème mooy ki nga xam ne mooy tax sa xol di métti rab daf lay yàqal dafa yàq sa dund yëpp am na ñoo xam ne seen dund yëpp yàqu avenir zéro fu ñu nekk dañ leen di yërëm mbooloo mu nekk kenn du leen xam dañ leen a nëbbu ci lépp dañ leen dugal ci néeg bu lëndëm rab daf koy def am na ñoo xam rab du leen xeex ci côté boobu mm-hmm. waaye seen wërsëg lay tëj dégg nga danañ am bayra nit ñi dañ leen reconnaître dañ mën a ànd ak nit ñi mais bu ñu nekkoon président de la république sax mm-hmm. dañ koy attaayal ba nguur gi wàcc duñ jot dara déedéet am na ñu xam ne ñu ngi ànd ak ay borome alal ba bu seen ñu dig leen léeg-léeg sañ jox la ay millions ne la séddale ma ko nit ñi mm-hmm. te yow doo ci am dara fa ngay mujjee mooy seen diggante mooy yàqu nga ne sonn naa fekk li tax mënu laa defal mu ngi ci yow loolu xetal naa ci ay nit yu bëri mm-hmm. am na ñoo xam ne seen rab du leen yàqal ci wërsëg du leen yàqal ci côté seen côté dund mm-hmm. dégg nga ci seen avenir bopp waaye dafay dox seen seen diggante ak seen i doomi ndey du ñu àndoo diggante boobu la yàq am na ñoo xam ne seen rab dafay yàq seen lu aju ci waa seen waa kër papa mm-hmm. day xëttal sa doom yi bàyyi ñu lay rek lu bon lu nekk dañ la ko teg dégg nga toujours ñu ngi xalaat naka la ñuy def pour éliminer la am na ñoo xam ne seen rab du leen yàqal du leen teree am jabar waaye du ñu am njaboot am na ñoo xam ne seen rab li mu leen di yàqal mooy soxna mm-hmm. am na ñoo xam ne seen rab du leen yàqal soxna waaye soxna su baax lay yàq dégg nga toujours rek ci ñu bon ñi rek ci fi ngay amee fitna rek mm-hmm. la lay buural su ku baax ñëwee dafay simple ci yow ni ñam wu amul xorom dafay lewet ci na rek ngay dugg ci déception rek ngay dugg doo mës a taxawal kër mm-hmm. am na ñoo xam ne rab nu leen di yàqal am na ñoo xam ne rab dana leen rey te seen dee jotul daf leen di fatt mhm. docteur yi foog ne dee nañ ñu sul leen deux ou trois jours ñu ximilu fekk ñu ngi ci biir bàmmeel bëri na ñoo xam ne tey génn nañu àddina dégg nga mhm. seeni borom ñëw may leen génnuñu àddina mhm. fexeel lii nga def ko ci bakkan balaa ñu ko yóbbu ci marka margo bi da koy def rek waa ji ximiliku te bëri na ñu ñuy suul te deewuñu am na ñoo xam ne seen rab du du yàqu lu du seen avenir avenir tukki dañuy nekk ci réew mi baax waaye buñ tukkee bon am na ñoo xam ne ci réew mi lañ nekk dañuy baax lool waaye buñ tukkee soppeeku ba mel ni nekkuñu woon ñoom. waaw ndax léeg-léeg mm-hmm. waaye su ma ñibbisee damay jooy. Mm-hmm. ba rëccu jëf ji ma dafa am jinne yoo xam ne. ci def jigéen mu nekk caga rek loolu mooy seen rôle. Mm-hmm. xañ na bés dana ñëw ñu waxtaan ci monde jinne xeetu jinne bu nekk famille jinne bu nekk fan ngay yàqee. jigéen ñu bari ñuy cagatu bonuñ xam nga kiy cagatu ndax ñàkk. loolu daf dañ ko ci forcer maanaam environnement bi mu nekk mm-hmm. ak dëkk bi mu ne ak jamono bi mu ne ak organisation bi mu ne moo tax muy cagatu mm-hmm. kooku bonul ñàkk moyen ñàkk moyen mm-hmm. ki nga xamee ne moom dafay cagatu ndax bëgg góor am na ñu yegg ci bëgg góor goo xam ne góor gu ñu tasee boo la ne ooyee léegi ñu sëy ak yow loolu rab la amul inkaana amul nopp mën ñoo bañal góor am na ci réew mi am na ñoo xam ne faj nañ leen ci loolu am na ñoo xam ne seen rab ci xale la leen yóbbu luñ nekk nekk mag soxlawuñ mag xale rek pédophile moo xam moo xam góor moo xam jigéen dégg nga loolu rab moo koy def am na actuellement ci boppam bëri na ñoo xam ne ñu ngi nekk sa même góor jigéen ñi si ëpp ay jinne lañ ko def ay jinne waaw ay jinne leen ko def du seen bëgg-bëggu bopp déedéet man fañ naa ci ay ñu bëri hmm? ñoo xam ne jinne leen ci xërtal dégg nga loolu dafay am léegi nag kon su ko defee ñiy cagatu bu dee dix personnes lañ ñaar rek ñoo ci dugg ndax alal dëgg dëgg dëgg dëgg mu des nag koo xam ne dafay cagatu ndax famiyam dañ ko wan gannaaw mm-hmm. environnement fu mel ndimbalam néew fa mm-hmm. dégg nga surtout nag niñ dooleelee ko am ak ci kaw ku ñàkkul dégg nga xeebaate bi ñu am te ñàkk dund lislaam waral ko te mm-hmm. jinne yi tamit ne ci gannaaw ndax jinne day dox ci pas-pas day yàq pas-pas dégg nga ndax ki lay turloo deret pour jinne kooku turatoo deret ngi yàlla yàq na si jaamu yàlla ah maanaa ñoo dem ci dernier muy wàllu ngóor ah. gaa léegi dem nañ sax léegi bay wali sunguf di jël hmm. ay doomi viagra hmm. wal ko boole ko jox nit ki hmm. faj ngóor te doo jox nit ki reen wala sungufal est-ce que mën na nekk waaw ngóor moom tur yàlla sax dina ko faj ngóor a jinne sax dina ko faj mag ñi ñu am dégg nga ñeenti jabar ba am ay taara te ku ñu ayee ci yow da nga toog semaine doo soxla góor wala da nga toog lu ëpp semaine doo soxla góor mm-hmm. moo tax mag ñi mënoon yor jabar yu bëri mm-hmm. te mën a dégg nga ci ñaar ci benn guddi am na secret yu am ci ngóora ci benn guddi mën ngaa jël ñeent xale yu jigéen yoo xam ne dañoo vierge waaw ngóora dañ ciy samp nit comme ni ñuy sampee mbër mm-hmm. ngóora dafa am tur yàlla buy samp ngóor buy samp bu ñuy sampee ngóora dafa am alquran fu ñuy sampee ngóora samp laa de samp samp comme ni ñuy déggee. yaa ngi dégg dañ ko samp waaw. Mm-hmm. dégg nga nga am physique. Mm-hmm. comme ni nga nit nit di amee physique bu entraîné. Mm-hmm. noonu lañuy sampee nit ci ngóora. ci côté yëpp nag. ci waaw ci côté yëpp. moo xam émirine moo ko def. moo xam siti moo ko def. moo xam rab moo ko def te bépp feebar bi ay ci biir rek xam nga biir mooy góor. yaa ngi dégg même sa biir dina rëy sax. dox sa diggante ngóora. biir bu rëy nag ñaar la bu dee graisse a ko def mënoo am problème bu dee graisse la ko def mën na la bañ a sonal mais bu dee hémorroïde moo ko def mën na la sonal parce que biir bi ni muy funkee rek di xëcc ngóora gi muy aju ci kaw. mais ñun wax. site hmm? yi aussi day li nga xamante ni moo di ngóora ba tey ci site fi muy gën di liggéeyee mooy nga fexe nga gaaw a éjaculé ak yàq sa man nii waaw mais hémorroïde moo gën di yóbbu doole ak rëyaay. ak puissance ak envie yooyu émoride da koy naan kon su ko defee jinne yi da koy def am na ñoo xam ne li leen koy def mooy dañu sëy ak jabaru jàmbur fekk dañ kooku dañ koo miite ku sëy moom da ngay yàqu te xale jigéen ñi léegi góor yi léegi dañoo ñemee jabaru jàmbur ah waaw dañoo ñemee jàmbur am na koo xam ne tamit dañ koo fase ba pare yàq ko dindi naa ci ay jigéen yu bëri yoo xam ne dañ leen a fase góor ne la doota tiima góor tiimati dégg nga góor gu la tiim rek day yoom du ko du ko ñaareel am na jigéen yu bari dañ leen yàq te li koy sabab nag mooy ñu takk la def ci yow lu ne ba pare nga war nikki moom pour moom benn solution rek gis mooy yàq la kon dee nga jigéen dina la ko def am na jigéen yoo xam di nga seeg ñoom it seen rab téye la ala alakulial yi ngóoral li koy def bari na pour mu bañ a jël sa temps waaye bu mu ci mën a doon rek dee nga bu ñëwee si ñun dañ lay samp comme ni ñu sampee mbër macha allah waaw rek ma waaw waaye avant foofu dafa am fu ma bëggoon a taxaw tuuti rek ci li nga xamante ne moo di wàllum xalwatu ndax it bëri na ñoo xamante ni seen i mbir ñii seet du ko gis ñii sarax du ko gis mais dugg xalwatu rek moo mën a defar seen i mbir mën naa ko xalwatu ñu koy wax waaw xalwa moom hmm. wax ko wax ne mën naa ko moo gën a yomb def ko hmm. ndax xalwa risque yu bëri ñoo ci nekk man nga dugg xalwa jinne mhm. mhm. feeñu la sa bopp bi diisul nga dof man nga dugg xala feeñu la sa bopp bi diisul nga dof mbott sax mën na la feeñu ci biir xalwa ne la loo bëgg nga ne ko <laughs> waaw nga dof mhm. xalwa moom ku xamul rek moo koy ñeme ku amul xam-xam moo koy ñeme mais xalwa soo ko manee def ko léeg-léeg ma war a dugg ñaanal nit ma ne ko xalwa la laaj mais man duma ko def damay sant nit mu def ko ndax léeg-léeg nga am ay xalwa yu bari dégg nga yoo xam ne doo ko mën a def mais ala kulli leen tëju xalwa xam ni nga duggee bala ngay tëju nga dàq jinne yi ne ci barab bi yëpp nga xam ne rawaxaan dañu am accès den leen du leen kale barab bi day leer nga ñaan ci ajo aajo wul moom munu nekk waaw moo tax nitu yàlla yi boo gisee dëkk yiñ daan wër yëpp dañ daan tëju sëñ Tuba dem na dëkk sàngam dem na dëkk sàngam gis nga bi ko yonent feeñu sax dégg nga ci yoonu yoon wi mu war a génn dégg nga dem ci tukki mi sababu xëybati mm-hmm. ana laa araada ana mi minu jaa waan akuna shaafian li qawmi waan akuna xaadiman fi daw mi mm-hmm. kooku ci xalwa la waaw parce que xalwa yonent bi bi muy dem ci yàlla sax xalwa la dafa bàyyi ba ñëpp wéet mu dem yoonam mm-hmm. dafa dem ba wéet ak yàlla laylatul isra wala mixraaj xalwa nag moom mooy ñaan bi nga xam Moussa bi muy dem ca miqama xalwa la def dégg nga Yaxya wala Zakariya te juloon nañ ko ñetti fan xalwa dafa am cosaan ci diina léegi ni nga ko war a duggee ñu fay la li ñu la war a fay nga def sarax yi nga war a def sarax mm-hmm. ah xalwa nitu yàlla yu bëri ci lañ faloo de mm-hmm. ku bëgg a falu dëgg mm-hmm. def lul xalwa pour ñu samp la xalwa xalwa dëgg-dëgg boo koy duggul boo ko duggul pour benn aajo xalwa duggulu ko pour samp ci lépp am ci lépp waaw yéen aajo yu ndaw yi mën nga ko def sans xalwa mën nga ko régler sans xalwa ayca buur nga ñëwoon ci fi nga doxawoon rek waaw assemblée sëñ di gis nañ ni pas-pas yi léegi dem na ba assemblée ndax barki dama gis nañu ab député bu jigéen bu ñuy wax Ami Ndiaye euh, jàkkaaroo waa Pire yi tudd seen kilifa sëñ Moussa Sy Al Maktoum ñu teg ca benn fan député bu Pire fekk ko fa ne ko tillib talaata ba mu daanu xam hmm. assemblée mi ni muy doxee léegi saagante ndey xuloo saaga ci ñoo xam askan wi ak seen yi teg nga suñu nguuru àddina yi ëwalaan mm-hmm. liggéeyuñ pour wan yàlla mm-hmm. jiitewuñu réew mi pour wan yàlla jëflantuwuñu ak yàlla nit nag bu jëflantuwu ak yàlla mm-hmm. bu newee ci bara fàtte yàlla ku ragalutu yàlla mënatu ragal kenn ku ragalutu yàlla mën naa bañ ruus kenn Mm-hmm. loolu mooy benn benn ëwalan beneen bi ci topp mooy su nit ki xamee ne loi bu mu voté mm-hmm. ëllëg dañ ko atte àllaaxira bu ci peuple bu loroo mm-hmm. Omar ibnu Xataab day wax sa gën daanu sa ron pont ba ëllëg àllaaxira mën la ko yàlla di laaj xam nga ne kooku mën naa jiit réew de waaw ah, pourquoi mu daanu ci ron pont kon kooku mooy njiit dëgg ku xam euh, ku doo doo bëgg nekk sa njiitum réew ndax nit ku nekk ci peuple bi yàlla dana la atteeg moom ëllëg ci akam te dafa am lu ñuy wax muflis mooy perte yonent dafa laaj saaba yi est xam ngeen ku perte mm. ñu ne ku perte su ñun de mooy ko amul alal amoo matériel mm. mooy leen ne ku perte sama xeet mooy koy jëli di or di def jaamu yàlla yëpp asaka yëpp mm. waaye nag di di yoral nit ñi àq di leen saaga di leen dóor di lekk seen alal di tuur seen deret di leen tëj kaso di leen not ànd ak na di julli di or di wér def yëpp mu ne bu ñu demee àllaaxira yàlla daf koy teg teg ñi mu yaral àq ñëpp di jël yiwam yi di leen ko jox di ko fay di fay bu demee ba mu jeexal yàlla jël ñee seen yu bon yi tuur ko ko dugal ko safara waa ki jiite réew mi wala ku am place assemblée wala ku nekk njiit societé wala ku nekk njiit sax ci kër borom kër gi nga xam dafa yor àq njabootam bu fekkee kenn ku nekk dana jël sa yiw jox ko bëri na njiit yoo xam ne safara lañ jëm kon ku ragal loolu boo nee assemblée da nga xam lan mooy sa taxawaay muy première fois deuxième point sëriñ bu duggee ci politique du bañ ko wax ak moom te sëñ Moustapha xam na ne ci politique def ci dugg kon benn tamit il faut que yow taalibe bi da nga xam ne lee moom moo ci dugg pour xettali peuple jàppee ko comme yonent bi yonent bi saaga nañ ko xas nañ ko ŋàññi nañ ko tuumaal nañ ko kon sëñ Moustapha mënut politique bëgg a xettali réew mi te duñ ko saaga duñ ko tuumaal Sénégal nag ñoo bëgg lu yàlla amut yenent bi amu ko ñu ne seen sëriñ bi da koy am mooy fii rek ngay fekk Sénégal ku weddi sëriñ ne sëriñ bi gëmuma ko ñooy dañuy xeex ak yow te yàlla six milliards yi nit gëmu ko te xeexut ak kenn te moo leen amal loolu nag ñàkk diina la ci Sénégal sa sëriñ la ki wax ak moom su politique wutoon du ko wax da nga koy jàngat ci buntu politique parce que Macky Sall ni ñaa ngi koy saaga bés bu nekk parce dafay politique dafa am géew boo xam ne boo ci duggee bàyyi xel yooyu mais moom lu ko ci dugal mooy xetti réew mi moom xam ne saaga dina am lépp dina am moo mu ngi ne tekk kon man ci côté taalibe bi loolu laa koy wax beneen côté bi mooy sëriñ bi ci boppam làq na mbubam àddina làq na mbubam alaaxira làq na baatin yow mi toog assemblée di ko sànni xeer loolu wax ne ëllëg alaaxira mënu laa xettali tamit mbir yi rafet ci danay baax te boo ne tekki tekki wan la yoon te wax lu rafet moo sa yàqal ni dara te wax it dafa am nu ñu koy waxee wax dafa am waxin mu ngi ci politique seetal na waxee moom ne wax ji rafet rek nit soo fekkee li nga wax pour nit ñi xam la am na noo koy woddee nit ñi danañ xam te doo lor peuple yi te naqar du am te bëri na ku ko def nag sëriñ taalibe mer am na loo xam ne bu ko defee rek éliminer yàq sa dund. loolu jar naa moytu. Eh, ñu koy moytu loolu ci moom. Ah. mënu see ñàkk c'est coupe du monde ah. sëriñ si ñaan maa koy jël ah. ñu naan maay dugal bii ñu naan yor naa six cent mille jënni hmm. ñu dina jël coupe du monde waat hmm. coupe du monde bi am na lu am na lu ma ci yàlla wan mais man nag du may topp buzz maanaam lu xew rek ma ñëw sa ma ñëw ci rek hmm. d'abord li xew lan la football football lan la fo la est-ce dina bëgg a feeñ ci fo sëñ Tuuba daan dégg nga ko ci match bu mu mës ñaan ci daañu maa nag dégg nga dégg nga leen ci mbër ci làmb dafa am loo xam ne duñ mbiru sëriñ loolu mbiru njabarkat la sëriñ day xool day buy xool ñaan day xool ci lu dagan mu ñaan ci mhm. li araam du ci ñaan boo nekkee sëriñ nag lu mel ni coupe du monde am bëgg naa Sénégal gagné ndax al aw laa ki gën a jege. moo gën a yeey. Mhm. comme yàlla suuf si la tànn ma ma juddoo fi. Mhm. nangu dogalu yàlla mooy nangu ne man Sénégalais mhm. su Sénégal di xëccoo keneen rawatina réew moo xam ne du réewu jullit. ma ànd ak moom xam nga jullit ak jullit bu ñu xëccoo yoo ko war a faral. ah non jullit ak jullit laa wax. Ah, jullit ak <laughs> Sénégal buy xëccoo Qatar na Qatar. Sénégal ngay ah. ngay faral en nit. mais bu dee en tant que nag jullit dafa bëri lu koy tënk léegi na kon su ko defee euh, ci wàllu far Sénégal laa faral ci wàllu yéene ku gañe Sénégal laa bëgg mu gañe Sénégal laa bëgg mu indi coupe bi waaye est-ce que ñeme naa yàlla toog jàkkaarloo moom naan ko mayel Sénégal ndam ci waa ci côté boobu du ma ci wax ndax loolu mbiru njabarkat la mm. Aïssa dañ ko laaj dafa laaj yonentu waa mbiru njabarkat yi nag da ngay gis léeg-léeg ñu wax dara mu am yonent bi ne ko waaw jinne yiñ ànd ak dañuy tegaloo ba ci kaw asamaan ñu déglu malaaka yi suñuy waxtaan li war a xew suba hmm. su dee malaaka yi ne suba de Sénégal dana gañe wala suba Angleterre dana gañe wala suba France dana gañe su ko defee ñu sàcc baat boobu ñëw wax ko njabarkat bi su ko defee njabarkat bi gaaw génn suba Sénégal mooy gañe 2-0 exemple hmm. léegi nag su boobaa ñu xëy loolu am mu ne su paree nag ñu mu doole ci téeméeri fen match bu ñot <laughs> mu wax commencé di daanu kon loolu mooy mbiru njabarkat dafay bëgg ne wax naa nangam am na mais sëriñ dëgg duñ ko xamee ci wax nangam am na nit dana mën a seet te du ñaan nit dana man lu mu wax mu am lu mu wax nit ñi gis ko te ku ko ñaan loo aajo du faju kum faj doo wér kon nag loolu mbiru njabarkat la nañ ko bàyyi ak njabarkat yi ak sëriñ bi nga yi nga xamee ne xàmmewuñ dëgg-dëgg mm-hmm. mais koo xam ne ak yow ni ma xamee mm-hmm. xam nga ne man diina daf ma ñor mm-hmm. bu alal tegoo mu xam ne lii mën naa ci am teraanga mais dama ci ñàkk yàlla ma ma bàyyi teraanga gi mu dem ma jël yàlla tilka daarul na axira naj'aluha lillaziina laa yuriduuna ulwan fil ardi wala fasaada di gis nag nguur ak alaxira ak teraanga alaxira yàlla mu ne dañ koo def pour ñi nga xam ne na mu ñoo kawe ci kaw suuf na mu ñoo yàq sëriñ ci fi ne woon du duñ doon pokkaroo am naa katkat dañ doon pokkaroo am naa yére bu rafet dañ doon pokkaroo am naa kër gu rafet sëriñ moo bëgg a réer bi moo bëgg a nekk ak mbum mi waaye sëriñ dafa bëgg a réer. waaw doy da jotaay ñu ne aajo bu waaye am budul mooy yàlla yal na ko yàlla faj kon ndax nit ki ci aajo bu nekk la war a ñaan kon problème bi foofu la nekk léegi nag mu des mbiru jinne six mille six cent mille jinne moom ko ko am da nga war a indi kub bi. Hmm? non six cent mille jinne. waaw benn jinne rek mën naa téye tànki yëpp su ko xam jinne. waaw waaw six cent mille jinne nga wax six cent mille. Ah, am na googu dafa war a indi kub waaw waaw. forcément. 600000 jinne. waaw su ko andiw dañ ko na rey. dégg ah waaw 600000 jinne la wax di benn jinne rek xam nga jinne nag dafa bëri façon am àndandoor 600000 jinne yu ànd yow bokk te 600000 jinne yu ne sa taalibe xam nga jinne fii yaa ngi koy sas ne ko nangam laa bëgg mooy il faut nga tuural ma dere du sa taalibe hmm. sa xarit la rek rokki mu rokki kooku du taalibe. taalibe yow sa sëriñ ki nga jébbalu bu la waxee nangam laa soxla da nga ko wax ne ko nangam nga may jox dafa bëri ñuy wax am naa ay jinne fekk amuñ jinne benn àndandoor lañu am wala dañoo dóor nit ñi ay collaborateur wala asa amuñ benn jinne nit moo gis na rek kuy am am lu jinne il faut nga sol yu xonq il faut nga garaaw garaaw il faut nga samp ay bant gars yi gisuñ jinne nga tuut deret yooyu su ko defee lu xonq nga ne am naa jinne ku ci man dara comme mënoo woon gaa yi jinne te doo leen woon jinne te ñoom gisuñ jinne ku si man dara mhm. mais Sénégal ñoom ñoo ragal jinne te jinne nit moo ko ëpp doole mhm. waaw waaw moo ko mën a fekk ci baram na ko jógee fii mu dem mhm. jinne nit rek la ragal waaye ban nit kon jinne rawaan moo ko ëpp képp ku ko am te jinne yi duñ jinne jullit ndax jinne jullit moom du la liggéeyal ci fubal jinne jullit soo àndeek moom lu araam jinne jullit ba àndoog moom boo ko bëggee def boo bëggee def lu aram dala koy aye wala mu génn ci mm-hmm. wala nusrik bi rabbina ahada jinne moom daal ku ko am par force moom ko bi daa war a ñëw ci réew mi ah man de su ma amoon six cent su ma waxoon ne am naa six cent mille jinne uh-huh. damay assuré coupe bi ci fekkee ku xam jinne laa de moo tax dafa mel ni des gars yi dañu xam luy jinne mm-hmm. ah jinne benn jinne rek mën na la indil coupe bi boo ko moomee uh-huh. ma la jinne joo xam ne moom ko nag uh-huh. dalay laaj génneel ma sa ax naa mais jinne boobu moom nga xam ne sa taalibe la uh-huh. benn jinne rek moo indi la kubbi macha allah comme 600 jinne la 600 mille jinne la am nag uh-huh. ñu ngi xaar kubbi jërëjëf Cheikh Ousmane Mbow yi ñu amoon ak moom li nga xamante ni moo di waxtaan bu am solo seqoon ko ak waa Sénégal Buzz 221 ak Bprod Média euh, Cheikh bi kaddu yi am na solo rek dama lay bàyyi rek nga joxe dernière kaddu yi ñu daal di tàggatoo ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan réew mi yal na yàlla def fi jàmm te saxal ko fi mm-hmm. te barkeel ko mm-hmm. leen gërëm di gërëm jàmm yàlla yëpp li baax ci yàlla la bàyyeekoo mm-hmm. li bon ci man la bàyyeekoo mm-hmm. ñu ngi tawasulu ci barki yonent bi yàlla nangul ñu suñ lépp mm-hmm. dégg nga euh, yàlla may ñu tawfiix ci suñ yëngatu yëpp ak suñ dal ñi yàlla boole ñëpp te yàlla may ñu si ndam ñu ngi si sant yàlla képp ñu yàlla boole it yàlla may ko ndam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu